yene ngi gis militant yi eh, ni ñu eh, génnee ñi non di génn ñu xaare ne nak ñom lan lañuy ñëw avoué lan lañuy ñëw ah irrecevable nee ñu dafa irrecevable mu ngi non di dem donc eh, dañu wax que ni dafa irre sëñ bi sëñ bi tey yow sëñ bi ñu ziar la dafa mel mais nanguñ wax nanguñ wax xëccal ma irrecevoir son dossier moom la lay bañ mu xaw Sénégal boo yoroo kenn du la dégg gis nga lii yëpp lii yëpp lii yëpp ñoo nekk ci ginnaaw lii yëpp ma koy nekk Sénégal la victoire du Sénégal tey la ñu bëggoon sauver Sénégal li tax mënuñu ko jox dëgg ñu ngi son 2012 ba léegi ñu ngi son léegi nag fu mu yem neex bu ñu bokkul élection du am mën na la bu ñu bokkul élection du am ñun PDS bu soog la nga am super message élection du fi am élection du fi am gis nga dëkk bii atte yoon amu fi atte yoon amu fi ku bëgg yoon bu yeboo nga yoon moom mënu fee dox ndax attekat yi dañ leen a trompe ñemewunoo wax dëgg li mu def waaw ñun lii bettuñu honorable député Khady Dieye la honorable député Khady Dieye honorable député Khady Dieye oui ici au Ici au Sénégal, la justice, il n'y a pas de justice au Sénégal. Il n'y a que des corrompus. Il n'y a pas de justice, il n'y a que des corrompus. Il n'y a que des corrompus au Sénégal. Il n'y a pas de justice. Loi la loi je devait donner Karim raison. Mais pourquoi on ne peut pas donner Karim Wade raison dans ce Sénégal-là? Je me demande. Pourquoi on ne peut pas donner raison dans ce Sénégal Il y a des corrompus qui, euh, euh, qui, sont en campagne. Les corrompus, les corrompus et les corrompeurs sont, en campagne. Ça n'est pas normal. C'est ça qui n'est pas normal. Là Wad, da la fekk fu pare wax leen. léegi nag yéen Badio Camara Amadou Ba Cheikh Ndiaye Cheikh Koulibaly. Macky Sall ak Amadou Ba day yomb déggoo ma de Amadou Ba Cheikh Ndiaye Cheikh Koulibaly Badio Camara day metti nag du yomb de da nga foog ne day yomb. billahi élection yi du am 2017 bi nga wax moom la ñuy dem. kenn ku dul waa Kër Sonko yooyu dong lañ ragal ñiy sànnee ko toj amut juge bu amul amut Amadou Ba traiteur boobu jàmm bu bon boobu nga xam ne Macky Sall la dafa jam paaka dem jam Macky Sall paaka li ko Macky Sall defar Ousmane élection du Lamine Thiam n'inquiétez pas c'est intéressant voilà Mamadou Lamine Thiam qui va se prononcer donc ah bàyyi ñu arrière Sambal ñu am double nationalité lu jël ñu ñun ñu rek lu jël ñu ñun rek lan moo tax bi ñuy càmbar ñu am double nationalité mu jël ñu ñun kese te ñu leen am double nationalité pour lan bu mu ko teg ba ci biir Rose Wardini am am double nationalité ñu doog koo génne tegul fenn tegul fenn Macky Sall lañ président lan waaw voilà euh,

lan lañ mën a xaar président lan lañ mën a xaar. bisimilah bisimilah waxal. voilà militant Euh, hein. allez Nous venons de sortir de la Cour suprême qui a jugement. Euh, nos requêtes ont été déclarées irrecevables. Donc en conséquence, en termes clairs, ça veut dire que la campagne électorale s'est touchée. l'élection aura lieu le 24 mars sauf extraordinaire. En tout cas, jusqu'ici, euh, la conclusion que nous pouvons tirer du jugement euh, de la Cour tenez, à présenter ça comme ça. Maintenant, maintenant, maintenant, euh, maintenant, maintenant, on est, on, est, on, est, dans le domaine de la politique. Nous, ce qui nous a toujours intéressés et qui continue de nous intéresser, c'est que cette élection-là puisse avoir lieu dans un contexte de paix, de calme et de stabilité pour que les Sénégalais puissent choisir leur, euh, euh, euh, président de la République. naturellement, nous ne sommes pas satisfaits parce que nous, nous sommes pour une élection inclusive. Et nous continuons d'être euh, Qu'est-ce que vous allez faire maintenant je veux que vous allez faire Nous allons nous allons euh, réunir, évaluer la nouvelle situation politique et nous vous euh, convierons à une autre rencontre pour vous dire exactement ce qu'on a retenu. Si on l'offre, euh, loolu jàppante jàppante day jëli affaire bi. waaw Waouh, Waouh, ngi suprême. xam ngeen yéen ñëpp ne danoo demoon cour suprême attaqué décret du président de la république euh, signé pour convoquer électeurs yi euh, cour suprême wax na ne requête yi ñu def c'est irrecevable maanaam maanaam mënu koo atte moom mënu koo atte euh, kon dafay tekki Euh, élection bi dina am le 24 mars comme ni ko décret bi waxé kon ci fi ñuy koy waxé ci dañuy tënku ci lolu waaye di fàttali ne naka jekk nun li nu mas bëgg té di continuer di ko bëgg moy élection ci Sénégal nekk élection bo xamné day day yaatu képp ku ci war a mën a bokk bokk ci bu fekkee ne mën naa am xayru bu mënta am it ñu tënku ci li nga xam ne moom moom moom moom moom la ñu wax loolu moo fi suus waaye tekkiwul nag ne ànd nañu ci loolu. li ñu am wax fas yéene lan ngeen fas yéene def. alors dina lu ci waxtaan dinañu waxtaan euh, xam naa bu subaa dinañ def réunion euh, waxtaan ci situation bi xool naka la ñuy taxawee mais yaakaar naa ne euh, dinañ dinañ ci am taxawaay bu rafet. merci beaucoup jërëjëf c'était donc Mamadou Diop Decroix ñu ngi noonu Mamadou Diop Decroix la. yau yau yau yau yau